originaire de Bokki Diawé différent de Bokki Dialobé de Ablaye de Ablaye Daoudé Bokki Dialobé oui. donc Bokki euh, Bokki Diawobé Bokki Diawé Bokki Diawé hmm. alors est-ce que da ngay respecter la tradition politique depuis quelques années euh, depuis Idrissa Seck Macky Sall euh, Sonko c'est-à-dire da ngay dem fa nga sokkee ko ci sa cosaan nga implanter fa sa base affective et puis nga laaj seeni suffrage Idrissa Seck bi mu duggee euh, politique dafa dem implanté wu à Thiès il a régné une vingtaine d'années Macky Sall il s'est implanté à Fatick Ousmane Sonko euh, dem Ziguinchor présidentielle bi d'abord mu gagné Ziguinchor Euh, ñu ñëw élection locale mu nekk maire u Ziguinchor est-ce que yow da ngay topp cette cette tradition la maanaam nga dem bokki jawe implanté fa sa base et de bokki jawe nga lancé wu à la à la conquête du du du, du Sénégal. maay Sénégal xam nga Serigne Fallou yaay Sénégal Serigne Fallou yàlla suñu borom taas ñu ci barkeem. yokk leeram ci àddina ci àjjana dafa ne woon maay Sénégal dama jàpp ni hmm. sénégalais bu nekk dafa war a wax ne may senegaal ñaareel bi ma bokk ci Fuuta nekk doomu Fuuta ni may ndamoowoo Sénégal noonu lay ndamoowoo Fuuta xam nga base affective duñ ko créer comme ni nga ko waxee base affective ci xol la cofeel la waaw mën nañu jàpp ni fi ma juddu ñi ma fa sopp macha allah bari nañu sopp nañ ma sax ñoom ñëpp danga may jox occasion de ñëwaat ci kàddu yoo xamante ni euh, le ministre de l'éducation bi nga ko dalalee keroog wax na ko xam nga Fuuta puisque question bi Fuuta la porte sànq ba léegi ñu ngi waxtaan ci Sénégal de manière général gannaaw bi ma waxee maay Sénégal ma teg ci ni maay Fuuta yaay Fuuta pourquoi ma wax ko hmm. c'est très important Maïmouna hmm. fuuta dafa rafle leader Macky la moom xaaral rek ma xaaral ma gis nga le noor te bu ma waxee Fouta nga jàpp Dagana ba Bakel Toul de Dimat yaa ngi dégg Eliman Boubacar Kane Toulde Dimat nga boole ci Bodé Laaw Thierno Souleymane Baal ba comme ni ma la ko waxe ba Bakel xam nga lu tax ma ne dañu rafle ay leader ku nekk da nga contenté wu benn parti bu ndaw ci Fuuta nga samp fa sa ndënd nga taxaw Fuuta dafa soxla leadership bu buy indi développement buy indi transformation. keroog def naa fa dem naa fa xaaral rek danaa ñëw danaa ñëw ci ci ci Macky les laisse-moi terminer moo raisonnement parce que da nga ma poser une question sur la base affective ma lay expliquer connaissant les réalités Fouta dafa rafler un leadership transformationnel buy jàpp ni li tax ndaw yi génn si baykat bi génn si sàmmkat bi nappkat bi jigéen bi ñu créer de condition de développement plutôt que de penser que de penser noonu mën ngeen ñëw dakaar walla bu méttee metti dem leen bitim réew il faut ñu def une décentralisation économique en plus de la décentralisation administrative et institutionnelle boo xamante ni du yem rek Fuuta je parle des région gox yi ak goxaan gox goxaan yi ci Sénégal de manière général pour permettre aux gens d'abord ñuy liggéey di dund de manière correcte sans forcément penser que il faut nga dem immigration pour nga réussir encore que tukki c'est un c'est un droit humain à la limite mais foog ñu créer les conditions de développement au niveau du Fouta te leadership bi ma gis Fouta ce n'est pas un leadership qui crée pour le moment ces conditions et pourtant et pourtant Mamour, on a Mamour, eu des leaders Mamour, non ngay permettre on a eu des leaders yoo xam ne très rapidement ah, ah, ah. je termine là-dessus je termine là-dessus pour ñi nekk ceux qui sont natifs de cette région et qui connaissent le cette l'histoire de cette région bu ma leen waxee am nañu pourtant à un moment donné ces leaders ay ñoom Ali Bokar kan abu Bakri Kane ñoom Moustapha Touré ñoom Oumar Wele ñoom Bokar Seck ba ci plus récemment les Cheikh Hamidou Kane le grand aventure ambiguë Cheikh Hamidou Kane Mathiara Abdourahmane Touré Abdourahim añ Parmi les acteurs politiques d'aujourd'hui, il y en a, mais pour ne pas faire des jaloux, je préfère ne pas en citer. donc nañu gën a jiital ce leadership boo xamante ni politique transformationnelle au niveau de cette région boo xamante ni qui peut être le grenier ou en tout cas parmi les greniers du Sénégal qui pour moi qui pour moi est victime d'une certaine négligence. alors Mamadou euh, ce serait vraiment prétentieux ma lay laaj est-ce que xam nga bu baax Fuuta mais Macky moo tax ma la naan Macky Sall lan la qui connaît le Fouta avant 2012 ngay dem Fouta aujourd'hui le Fouta a beaucoup changé d'abord en termes de désenclavement mën naa ne Macky Sall li mu région yi mu gën a investir Fouta ak Ziguinchor bokk nañu ci désenclavement électrification yàgg nañu dégg le désenclavement de am amorphique pendant trente ans mosul am aujourd'hui est-ce que Foutanke yi gisuñu en Macky Sall un leader parce que votel bi ñu koy votel du rek un vote affectif ensuite nga ne leader bu nekk da nga samp ci sa patnaay nga nga kii ñoom ils se reconnaissent en un leader c'est Macky est-ce que leader yooy nga xam ne aujourd'hui Macky Sall samp na leen Fouta ces gens-là est-ce qu'ils ne sont pas en train de changer la vie de ces populations-là est-ce qu'un jeune du Fouta a quelque chose à envier à un jeune de Dakar je le dis pour avoir vu avoir visité plusieurs localités du Fouta je vois des jeunes urbanisés je suis même surprise il un train de vie, il un mode de vie, ils, ils, ils travaillent, ils sont dans l'agriculture. Ce sont des leaders qui financent, qui jël ci seen poche di financer pour le développement de leur de leur de leur patelin. Aujourd'hui Fouta li mu am ci leader yuy defar seen gox di jox jigéen ñi di jox xale yi di faj di évacuer Ndakaaru amu ko Fatick amu ko Ziguinchor amu ko. est-ce que Foutanke yi ñoom hmm. doyluwuñu leadership. bu Macky Sall ak ah, démembrement yam fa bàyyi xam nga waxuñu leadership bu Macky Sall xam nga ah. sànq non attention non da nga ne Fouta amul leader bu ñu def non lead non je parle des li on parle du leadership local parce que on on était par en train de parler non bàyyi ma noonu déglu ma non non non non non non non on parle du leadership local en partant des propos du ministre de l'éducation et j'étais en train d'expliquer te li may wax ni ñi may déglu te ñu xam bu baax cette région ak cosaanu région boobu xam nañ ne il y un problème de leadership au niveau de cette région naturelle du Sénégal kooku benn la ñaareel bi ñaareel bi may mun a ban façon ma rek may ma continuer dama laaj ban façon leadership aujourd'hui au Fouta il y a plus d'une vingtaine trentaine d'autorités yoo xam ne ku ci nekk dans zone kenn mënul la faa gagner opposition du fa tambaambaalu parce que tu as fait des résultats et mun naa la citer comme ça dix leaders yoo xam ne xam naa leen j'ai visité leur patelin j'ai vu ce qu'ils ont fait là-bas ban façon leadership la ñuy wax est-ce que leadership du nga am utilité pour ta communauté et aujourd'hui dans ce patelin là plus que ailleurs on a beaucoup de leaders yoo xam ne ils ont de l'utilité pour leur communauté communauté ban façon leadership ngay wax bàyyi ma xam nga xam nga fu mu nekk nii yooyu yaay poser question yaay <laughs> tontu donc euh, bàyyil ma bàyyil ma wax may mun a d'abord am na loo xamante ni loo xamul ci fuuta loolu moo tax ngay wax boo demee fuuta di nga gis ñu mëne un train de vie ak mode de vie comme Dakar histoire fuuta mooy dispensaire émigré yi ñoo koy faral di tabax l'école ñoo koy faral di tabax forage ñoo koy faral di tabax courant ñoo koy faral di indi le bâtiment en les en dur yi ngay wax étage ñuy yëkkati ba ca kaw a kaw ñoo koy faral di tabax donc l'histoire du Fouta c'est ça. est-ce que xam immigration est-ce que xam nga immigration dafa wàññeeku laisse-moi terminer laisse-moi terminer par contre je ne suis pas en train de dire que état defu fa dara waxuma loolu état def na fa mais li ngay décrire ñi ci Fouta wéy dañuy am niveau de vie mode de vie comme ñi nekk truc je veux dire que loolu loo xamante ne lu yàgg la par contre may mun a fais attention parce que quand tu dis que jeunes yaa ngi liggéey te les jeunes du Fouta ñu ngi lay déglu. duñu am mais y' a le chômage ñu ngi joxe des bu graaw a graaw. Fouta comme partout bu graaw a graaw sax moo fa am donc tu m'as posé une question sur une région je t'ai répondu en tant que natif de cette région. ayant une connaissance type de cette région maintenant que l'État ait fait des choses là-bas alhamdulilah c'est une bonne chose mais terewul am na lu bare bare bare bare bare bare lu oui mais d'accord mais c'est ce que j'étais en train de dire moi j'étais pas en train de dire euh, que tout est nul que rien n'a été fait mais je suis en train de décrire que c'est une région boo xamante ni te kooku kenn mënu koo weddi qui en difficulté je te donne un, un autre exemple tu lan mooy créer emploi déjà à travers l'agriculture effectivement mën nañu créer l'emploi mais eh, compte-moi le nombre d'usines qu'il y a dans la région du Fouta boo moytul doo dépasser juste les phosphates de Ndendori ou je sais pas et tu tu as suivi le problème qu'il y a là-bas à la limite c'est presque à l'arrêt Je ne dis il y pas que le Fouta est voilà, donc, paradis, donc, donc tu mais vois, pour moi, a beaucoup changé. La, capacité, oui, mais, mais quand même, le Fouta aimerait bien quand même changer. Le Fouta n'est pas, bien... pas condamné comme ailleurs, comme, comme, comme tout comme ailleurs, à, ne pas changer. Par contre, je suis en train de te dire, potentiel bi Fouta am, pour qui connaît le Fouta, ak fi mu tol war war na mais pour moi ce n'est pas seulement le Fouta c'est l'ensemble du Sénégal c'est pour ça que je t'ai dit la décentralisation économique dafa war a nekk une réalité boo xamante euh, de plus en plus euh, euh, tangible